plateau spécial Covid 19 mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di am kontaan ak mbégte jàkkaarloo waat ak yéen tey jii yemoo ak mercredi 10 à 10 juin 2020 ñu fas yéene waxtaanee lépp lu luy coronavirus waaye naka la ñuy def tamit ba mu jógee fii ci Sénégal Moustapha Mbaye laa ci àndal Moustapha maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay Mahfous di nuyu tamit internet yi nga xam ne ñoo taamu di ñu seetaan. di ñu encourager à chaque à chaque fois ci suñuy liggéey. ayca bala ñuy ñëw ci waxtaan bi rek ñu daal di joxe résultat yi ñu am euh, tey jii comme ni ma ko waxee ci mercredi bi. jamono ji may wax ak yenn euh, mbokk yi euh, Sénégal en na lu toll ci 4640 cas positifs mu nekk 2885 yoo xam ne si nii wér nañ ba ñibbi seen njaboot 52 yoo xam ne si nii ñàkk nañ seen bakkan ñi tëdd ci hôpital rek ñu di amal ay traitement mi nga toll ci 1702. Euh, ñoo xam ne euh, euh, 1702 patients loolu la ñu am Moustapha ñoo xam ne si ni ñu ngi ci hôpitaux yi loolu la ñu am ay résultat yoo xam ne si ni naka la ñu koy jàngatee ak 10 virgule 2 pour cent comme taux de positivité mu mel ne ñi ngi ñi ngi ñi ngi am ak yokkute ci li nga xamante ne moom mooy taux de positivité bi. waaw xam nga mbir mi moom parfois dafay dafay jafe comme ni ñu ko yàggee di wax rek a chaque fois dafay jafe nga am ci natt bu leer parce que ni mu évoluer la. Mm-hmm. dafay évoluer en temps de si moo tax compréhension wala analyse am. du doon lu yomb loo xam ne parce que bi ñu démarré bi ñu reprendre après bi waa ministère defee seen point mensuel boobu da ngay gis ne lundi ñi ngi ñëw am 9 virgule 8 pour cent. mooy mooy mooy taux bi ñu amoon. ni ki démb ñu am 6 virgule 3 pour cent tey ñu am 10 virgule 2 donc boo xoolee dafa def ni wàcc. defaat ni waaw mi ngi noonu donc de ce fait il faut affaire bi avancer tuuti ñuy xool mi dem di dem di dem ñu am ci benn lecture globale boo xam ne moo ñi permettre tey ji ñu xam ne kat mbir mi bon bu ñu defee benn lecture ci tableau yi mooy ñu tax ñu xam ne mbir mi fii la toll ak fee la jëm mais lépp lu ci mënti am rek mooy dafa am loo xam ne ay chiffres la yoo xam ne dañ koy gis chaque chaque jour di ci am ay jàngat ñuy def mu mel nii ñi nga xam ne dañuy génn l'hôpital ñi nga xam ne dañuy dugg ak ñi nga xam ne dañuy ñàkk seen bakken ñuy wér donc loolu lépp bu buñ ko xoolee tey jii dafa mel ni ñi nga xam ne baaru sang bi ñu daan am chaque jour fan yëpp ñu doon ko am ñi nga xam ne dañuy génn dem ñibbi tey amuñu ko ñi nga am 76 donc ñi nga xam ne dañuy dugg tey gis nañ ne am na doole loolu tamit donc mii mbir moo xam ne rek lecture la boo xam ne daal peut-être fi ñu gën a teg suñu bët mooy ci cas communautaire yi mhm, ñu ñëw waaw ci cas communautaire yooyu sax tey 15 lañ ci mu mel ne euh, euh, li nga xamante si moom mooy jàngoro ji mi ngi mi ngi wéy di wër euh, li nga xam ne si moom mooy réew mi waaw man loolu lu ma ci doy waar parce que jàngoro ji boo xoolee mafus mbir mi dafa dafa soppeekuwul dara mhm. xam nga tey ji bu fekkonte ne bàyyeeku bi ngay gis ak nit ñi ni ñu bàyyee ñi dem ni doon na doon loo xam ne xel dina ko mën a nangu boo xoolee gis ne tey kat bu ñu xëyee ñu nañu cinquante cas wala trente cas wala vingt cas mais dañuy xëy boo boo boo liiree li ñuy am ni ak daanaka wér presque même la donc changement bi pratiquement bëriwul bu amee mhm. dañoo nekk ci benn plateau boo xam ne dafa def nii donc bon am nañ bi ñu jógee ci pic bi ci plateau bi lañu nekk actuellement donc mii loo xamante ne yow boo ko boo boo koy boo liir ngay gis ne donc kon ñi lan moo waral ñi bàyyeeku mm, mm, mm. parce que ñi ngi gis chaque jour ñoon di wax ne ay cent et quelques am nañ jàngoro ji bien vrai que à côté nañ la wax ne cent et quelques génn nañ de ce fait que boo defee ratio bi ñoom ñaar da gis ne pratiquement ñiy dugg du ko tax a bëri noonu par jour moo waral toujours ba léegi 2000 cas yi sax mënaguñ ko am ci ñoo xamante ne ñoo nekk ci centre yi mhm. ñu a euh, euh, euh, dem dinañ dem ba mën nañ am 11 wala 12 pour cent yoo xam ne si ni ay taux de positif yi la nekk est boobaa dinañuy wax pic. duñu duñu xool beneen euh, duñ ko xoolee feneen pic bi. waaw parce que bi moom débat boo xamante ne entre spécialistes je mm-hmm. pense que moom dañ koo teg tegati ko tegati ko. Mm-hmm. parce dañ ne loo xamante ne da koy passé doog koo dund. am na ñoo xamante ne ba léegi ministère bi ne dund nañ pic bi jour bi ñu amee 177 cas yi. Mm-hmm. ñu ne mënuñoo gëm na loolu pic la tant génnuñu phase bi carrément ba wàccul carrément parce que mën nañoo xëy am lu ko ëpp. wala ñu xëy mu gën a am benn flambée boo xam ne daf ñuy jaaxal. am na ñoo xam ne sax deuxième vague de contamination la ñuy wax actuellement. donc mu doon mbir moo xamante ne compréhension bi dafa def def cee wute parce que jàngoro ji moo ni mel. ñu bari nangoo gu ñu dégg pic mais lépp lu ci mënta am rek comme ñoom lañ jox seen communication ñoom ñooy wax. li ñu wax ci li ñuy gën a mën a basé moom la ñuy gëm ñoom xam nañ ne nee ngi ci pic pic bi romb nañ ko. gannaaw bi ñu rombee pic bi ci benn phase plateau lañ nekk après ñu xaar tuuti mu gën a wàcc. Mm-hmm. maintenant nag actuellement ñu ngi ci côté boo xamante ne dafa xaw a mel ni lu lu lu lu tegu. Mm-hmm. chaque jour kaay à peu près dafay nekk ci benn fourchette bi donc loolu moo waral mbir mi daal actuellement fi ñu toll nii xëy na ci kanam tuuti ak restriction yi xam ne bàyyi nañ ko. d'ici 15 jours d'ici 10 jours dinañ ci gën a am lecture bu gën a leer. d' accord bu ñu jógee ci résultats yi dañuy dem foofu ca centre Guérou foofu nag malades yi dañuy menacé d' aller en parce que dañu jàpp ne euh, amul ak sérieux ci ñi nga xamante moom la leen di toppatoo foofu ci centre boobu mu nekk mbir mu doy waar. waaw man dé démb déglu naa audio bi démb déglu naa ko vraiment euh, j'ai été vraiment ulcéré parce que bi ma gisee ni ñu doon euh, ni ma bi ma déggee ni ñu doon waxee. nga xam ne ñi am nañu leen metti ñoo xam ne da leen jël yóbbu leen seen kër xam nga boo nekkee asymptomatique dara mettiwu la mhm. xam nga ku dara mettiwul bu doon ñoo xam ne dañu am lu leen metti sax on peut comprendre ñu dañ leen mais ku dara mettiwul amul benn information bi nga teg ko fa di ko teste di ko bàyyi mu dem et puis mu am lu ñu am ñoom dañuy ñëw def fa quelques cinq jours wala six jours duñu matal sax ñu bàyyi la ñu ñibbi ñoom ñu toog fa ay weer. ñu leen di testé di leen bàyyi ñu ñibbi vingt six jours la wax. waaw vingt six jours waaw moins d'un mois donc. Mhm. duñ leen test di leen testé di leen bàyyi ñuy dem di leen testé di leen fa bàyyi bon ñu nekkuñu fa duñu ay médecins aussi xamuñu lan moo waral loolu. Mhm. mais je pense que mérité nañ beneen communication boo xamante ne mooy mën a fàggandiku boobale ñu nar a ñu nar a sumb. Mhm. parce yow jàngoro ji nekk mu ngi ci yow mais euh, wanewul donc kon kooku tey ji boo communiqué wul ak moom xamal ko bërëb bii ñu la teg dañ la fee teg ngir nga bañ a wàll ñeneen ak euh, jàngoro ji nga bañ koo tas ci dëkk bi kooku tey ji mën na jàpp ne da nga koo ber wala danga nga koo yeb te loolu mën naa indi ay jiixi jaaxa léegi foofu dama fay tijji benn fenêtre maxfus parce que mbirum euh, contamination asymptomatique sax dafa poser problème jamono ji parce que Maria Van Kerkhoff moom nga xamante ne moom moo jiite xeex bi fële ci OMS. Mm. responsable technique bi cellule bi ñu dénk lépp li xeex wàllu Covid 19 bi fële ci OMS. Mm. fan yii passé dafa woon benn sortie mu ne dafa raar nga gis personne asymptomatique bu wàlle jàngoro ji. Mm-hmm. mu ne dafa raar nga gis ko bi mu defee sortie mu jur coow après médecin yu bëri daal di tontu ne non non personne asymptomatique yi dañuy wàllaate. dañuy wàllaate ku nekk di ko tontu si tweet bi coow li bëri fa lool léegi nag mu commencé woon di rabattre carte yi parce que dañ ñëw loolu am na kon léegi lax jaroon na ko ñu leen di ber yenn beri mhm. mu ne leen noonu dama ne dafa raar waaye waxuma ne duñu wàllaate ci kaw loolu mu renchérir ay argument mu ne li ma ci tegaat mooy dafa am asymptomatique ak présymptomatique mhm. gis di commencé di génn nit ñi mi indi ay confusion ci bopp nit ñi mhm, mu ne ki nga xam ne dafa nekk présymptomatique mooy kooku mën nañ teg ñetti fan wala ñaari fan symptômes yi génn mais asymptomatique bi nag mooy ki nga xam ne am na ko mais symptômes yi du génn ñu ne kooku jafe na mu wàll man côté boobu de bu ma amee benn lecture bu xaw a sewtu damay gis ne fii da ngay gis koo xam ne dafay nekk asymptomatique ñu jël ko yóbbu ko seen kër kenn du ko fa wàll kenn. waaw parce que am nañu ne charge virale bi mu doon am moo amul doole. amul doole amul doole pour wàll yenn wàll mais lépp lu ci mënta am débat boo xamante ne entre mm-hmm. spécialistes yi. Mm-hmm. mi ngi tege et mi ngi mm-hmm. wéy di dem dañuy wàlle du ñu wàlle nañu moytu rek. parce que bu ne très rare wala day wàll wala du wàll aussi. tamit mais mais li ñu gis foofu ci santé géeru bi est-ce que du euh, manque de manque de de lu ñu koy waxati sax maanaam euh, suñu plateau médical ni mu mel ak euh, li nga xamante moom mooy mooy test yi ñuy def nombre bi ni mu toll est-ce que dina yomb ñu test ñëpp ci anam bi mu waree ak nombre Euh, temps bi nga xam ne si dina ko jël euh, pour ñu mën ci euh, tester nit ñi je pense que loolu moom mooy tax ñuy jël temps pour mën leen di tester parce que bu ñu tester war la tester waat bala ñuy ñëw mën na yàgg est-ce que loolu mooy problème bi aussi. mais xam nga xam nga tey jii man pour man bu ñu demee ba yóbbu leen géro ak yeneen bërëb yi ñu leen yóbbu pour mm-hmm. tester leen fa moo pour pour ber leen fa. Mm-hmm. pour man war nañu def seen i matuwaay. def seen kéent laay te nga xam ne de doo jël nit ki ber ko yóbbu ko ci benn endroit yi di ko di ko jox ay benn merguez guddi geeg mm. di ko jox yoo xamante ne daanaka lekkul donc yooyu dafay doon loo xamante ne pour man dafay indi yenn révolte yi mm-hmm. njëkkoon nañ fippu nag ba professeur Seck ah, bi fa demee affaire affaire lekk la woon. mais bi affaire affaire test la. bi affaire test la mais mhm. est-ce que test yi ni mu toll aussi li ñuy am ay 1000 la ñuy am gën gaa bari 1800 donc est-ce que loolu du problème bi aussi euh, nombre bi ñuy testé pour ñu exploiter ci ñoom pour mën leen tester aussi. mais ñu jël seen i matuwaay. ñu jël seen i matuwaay parce que ñoom ñooy autorité yi ñoom ñooy jiite. Mhm. mais ki nga xam ne da nga ko war a defal test saa su ne ak période boo xam ne si nga ko war a defalee test mais bu la gisul wala saa boo ñëwee nekk test bi non concluant la. Mhm. c'est-à-dire test bi ni ñu ko jëlee baaxul wala affaire yooyu ñenn non seulement communication communication bi ñuy am du leer. duñ leen wax lu leer bàyyi leen foofu tënk leen ci benn bi ñu mel ni ay prisonniers mais à kooku ñooñu dañuy dañuy dañuy te révolte boobu noonu kenn ñaanu ko fi yàlla. donc pour man moo tax ma jàpp ne rek euh, mbir ñoo ñoo xam ne daal jar nañoo gën a sóor. jar nañoo gën a bàyyi xel d'accord. Euh, mënul nekk hôtel parce que tamit jàngoro la dañ koy ñëpp dañuy comprendre nañ koy gérer. ak moyens yi ñu koy gérer yooyu yëpp. mais tamit nag war nañoo def seen kéemtalaay kattan xam ne tamit euh, ay nit lañ ñoo ñu leen leen. parce que je pense que bu ñu doon communiquer ak ñoom. bàyyi leen foofu ay services dañ leen di ay psychosociologue wala ñoo xam ne ñëw di leen xamal ak ñoom di expliquer ak ñoom. mu dimbal parce que temps dafa cher fois gérer ko noonu mhm. asymptomatique bi nga tënk leen fa te ñi ngi doon xam ne sax dina am fu ñu fu ñu jàngoro ji tool dootuñu amati fu ñu leen mhm. di jàll ci point bi nga xam ne ci foofu la ñuy muy euh, masque yi nga xamante ni euh, dañoo wax ne c'est obligatoire nit ñi di ko takk pour ñu mën fi euh, jëlee li nga xamante ni moom mooy mbas mi mais Moustapha ceetlu gi moo def mooy que nit ñi dañu bàyyi di ko dafa mel ni sax masque yi léegi dañ ci xaw tayal Euh, boo boo génne ci dëkk bi demee nag war naa nekkul ci dëkk bi. mais dëgg la boo boo taxawoon fii nii rek dinga gis léegi da ngay commencé gis yéen am na chauffeur yu am sax dañuy dawal te ko takk. Mhm. et au début deux semaines ci ginnaaw wala trois semaines c'était impensable nga dawal sa oto wala nga nekk dugg ci oto te takkoo masque mhm, mhm, mhm. chauffeur sax boo duggee si moo la njëkk wax saa waay an sa masque moom moo la koy njëkk wax mais loolu ne c'est un c'est un constat qui est là nag euh, man fi ñu toll nii dama dama daf daf may yéem parce que bu ma gisee tey ñu wax nombre de cas yi ñu am nii nit ñi di bàyyeeku dama naan en réalité est-ce que nit ñi ñu ngi suivre mais xam nga loolu loolu lépp li koy waral mooy xam nga boo boo boo yàggee tiital nit ki. Mm-hmm. li ñu naan ku sa wax yëpp la boo yàggee tiital nit ki mooy waral jamono yu weddi gi bëri. Mm-hmm. ñu bëri gel gel hydroalcoolique amatul ci yenn bëri raxasootuñu mm-hmm. parce que dañoo dem ba dañoo ne jàngoro ñun daal je m'en fous laay demee. parce que dafa am benn monotonie bu bu ministère bi ak ñi ëmb xeex bi di def. mooy mooy mbir bi nga xamante ne benn même chose bi ñu démarré ba tey même point de presse même heure li ñu daan wax la ñuy wax depuis mars ba tey. ñi daan wax ñooy wax ba tey amul benn changement amul benn stratégie boo xam ne jëm nañ koo def. pour réadapter xeex bi.

takkul ci mbedd bi bu la jàppee euh, ñu ni mu koy faral di waxee rek ñu yóbbu la nga fay nga fay ay daan. waa mais loolu tamit ñoom tamit nañ def leen war ba pare. waaw mooy joxe masque ñoom nañ joxe masque ba pare. d'accord ñoom bu ñu defee leen war ba pare ku takkul masque ñu daan la foofu ngay ñëw. moo ngi noonu ma xuus. <laughs> d'accord acca fooy tàggatoo. waaw fi may tàggatoo rek mooy encore une fois di ñaax askan wi. Euh. di leen ñaax asymptomatique ak symptomatique ak yëpp yooyu yëpp. ñun ñu ko xool ñun li ñu war rek mooy nañu fàggandiku naka la ñuy dafa jàngoro bi du ñu dal mhm. bu ñu fàtte suñu kër yi am nañ ay maam am nañ ay papa mhm. ku amul maam am nga papa sa kër ku amul papa am nga koo xamante ne ku atam yu magale yu nekk seen kër uh-huh. ñaanoo yàlla jàngoro ju bokk si li koy yóbbu uh-huh, uh-huh. kon nag nañu gën a moytu gën a fàggandiku su ko defee yàlla mën nañoo suturaal ñu gaaw jëlee ko parce am na ay mesures yoo dindi nañ ko waaye ba tey doyul ku sañoon dem say occupation ni mu ca waree ah, kon uh, mi ngi noonu jàngoro ji mi ngi fii ba léegi ñu bañ a bàyyandiku ñi uh, takk masque uh, di raxas loxo yi ba mu a wala ñetti caméra eh, di bégg aussi bu baax Biggy Jackson moom mi ngi ci eh, rédaction bi di gërëm bu baax aussi Mbène moom mi nga xam ne si bopp mu nekk ci coordination bi allez yéen aussi eh, ñu ngi leen di remercier bu baax a baax ci seen wóolute gi ngeen xamante am ngeen ko ak Sunugal 24 ñu ngi leen di jaajëfal ba suba incha allah yeneen plat beneen plateau ak yeneen résultat